waaw léegi euh, d' abord ma ñëw si wàllu santé bi man dama leen wax un peu li ma ci dugal ah vraiment histoire bi naa leen ko raconté dama yóbbu ma malade hôpital Grand Mbour ngeen xam ko ma fekk fa man yàlla may na ma peut-être yóbbu naa ko mu feebar ñu defal ko ordonnance pharmacie bu nekk euh, hôpital ba garabam bëriwul yeneen garab yi dañ leen war a jëndi si pharmacie de garde man xam naa pharmacie de garde am naa oto bu mën a dem jëndi pharmacie de garde mais gis naa ay nit yoo xam ne amuñu xamuñu pharmacie de garde fan ne parce que guddi na loolu def ma xalaat ne mais lii war nañ ci jóg ku ñëw tey nga taxaw fii nga jël ordonnance ne ko fay ma mille francs ma dem utal la pharmacie di nit day ñëw feebar ñu jox ko ordonnance day toog bi xaar bi suba pharmacie yi ubbi mu doog a fayu looloo am fii ak fépp looloo fi am foofu laa commencé xalaat ne lii war nañ ci jóg donc man dinaa ut point de transport boo xamante ne ñun bu guddee dañuy ñëw toog bu ñu soxla ordonnance ñu dem jënd ko mu fay soxlawul dem sax dañuy yónni whatsapp ordonnance kii bi <laughs> may may liggéey ah liggéey laa ah euh, ordonnance ñu yónnee ko médecin bi mu kii rek njël feuille de garde bi ñëw joxe ko. fii à Mbour ak feneen wala à Ziguinchor la feneen pharmacie de garde bu dee surtout ñu bëri si village yi lañ jógee xamuñu dëkk bi dañuy obligé toog bi xaar bi bët set seen malade lu ne nag mën na ci xew donc foofu la idée bi joge ndànk ba mu yàgg ñu ne ñu ambulance après ñu am ambulance ñu ne waa léegi mais bu ñu amee ambulance ok faju mais faju bi moo gën a am solo garab yi naka la ñu ne nañu ut IPM ñu taxawal IPM léegi fi mu ne nii am nañ contrat pour euh, benn infirmerie boo xam ne dina am benn plateau médical boo xam ne su neexee yàlla dina dox temps yëpp bu ko defee euh, maanaam daal jàppale doomu aadama yi daal si lu wàllu wér-gu-yaram si nu mu gën a anam yu mu gën a yombee ak nu mu gën a sellee loolu moo ci dugal. wàllu suuf si nag wax dëgg yàlla euh, lu ci nekk mooy dañu gis ni nit ñi dañuy xëccoo suuf te lu koy andi mooy que ku nekk day am kayit benn suuf am ñaari kayit loolu mooy ñaar nit yi am ku nekk fetel ñuy xeex. waaye ku yor kayit ak ku yorul kayit du ñu xëccoo boo demee commissaire rek commissaire mun na régler loolu soxla lu ngay dem ba tribunal waaye ñaar nit yor kayit moom mën ngeen xeex ba ilaa yow mi diin donc suuf yaa ngi nii kenn mënu ko liggéey te man may nekk huissier bis bu nekk ñu demoo woo may dem def constat ñu dema ci fay loolu moo def suma xel dem ni lii daal war nañ mën a xool beneen façon naka lañ mën a def ñu fexe bi ñu am terrain xam ne benn kayit lay am moo ci ngi si 5000 euh, terrains nous avons ne liggéey nañ département de Mbour bi au niveau de Casamance également fofu commune yi la ñuy gën liggéeyal ñoom ñoo ñu jox ay lotissement seen dëkk ak ak trois décentralisation nga xamni ne am nañ ci wàll fi ni parce que so xolé zone Casamance bi région de Ziguinchor ak euh, Sédhiou boko bolé boolee ñu ngi si hectares ci liggéey programme logement bi laalewuñu sax c'est que ñun dafa fekk ñun ñu fa won depuis 2 ans commune de Kaolack xam nañ ni aussi gouvernement bi tamit lu mu lancé nii fu mu dem nañu fa fekk. Oui, tamit ñom tamit loolu Nous def ñun ñu ngi def suñu tamit ñu ngi ñu ngi réaliser logement donc foofu ñu de Kaour ñun ñu déjà lotir hectares 150 hectares ñun avons ngi hectares je pense ñu ngi waxtaan ak maire bi barki maire la si man Sékou Ndiaye donc xam naa et suñu suñu suñuy mbir sa yaakaar naa ne. voilà léegi côté finance bi comme ni ñu ko waxee tey mbiru xaalis la euh, suñ partenaire boo xam ne Zulupay la ñun ñoo ko représenté fii si Mbour ak ci région sud du Ziguinchor bi yéene bi nag mooy lépp luy service financier ñun ñu ngi pare pour liggéey ak képp koo xamante ne loolu nga andi. fi mu ne nii benn lañ amagum ci lañ nekkagum am nañ nag ay partenaires financier nga xam ne si wàllu financement ak yeneen partenaires ak yeneen secteurs yoo xamante ne. yaakaar nañ ni war nañ fa mën a liggéey pour xale yi mën a am liggéey loolu tamit bokk na si loo xam ne moo ñu gën a sawarloo parce que secteur boo xam ne dafay jël ay emploi yu bëre bëre bëre bëre secteur finance daje bi tey du dara lu dul woo mbokk yi partenaires yi xarit yi ak am di jàmmi yi xamal leen ni liggéey nañu fanweeri at waaye liggéey bi dafa war a continuer ba faw te ñun am na fu ñu mën a yem léegi léegi balaa ñuy sore war nañoo mën a dajale ñëpp ñu waxtaan ñu xam ne liggéey bi dafa war nekk dugal ci wàllam ndax liggéey mën a continuer ñu taxawal ko nekk fekk 2030 ban taxawaay lañ ci war a am loolu moo tax ñu wootee tey suñu xarit yi suñu partenaires yi employé ñu gën a xamante gannaaw man mii man man la ñëpp xam waaye tey ñëpp xamante ñu xam ni ki mbir mi kat dafa war a continuer fekk 2030 romb fa wéy bi faw